na teel ñëw toog naka jekk ma xam ne ñemewul écran nag li muy bari wax noonu naka jekk ma xam ne ñemewul écran na keneen ñëw toog yow kaay toog kaay toog buy tëj après nga jëlaale ko euh, rakk ji euh, lamb ji lamb ji wërngal këpp ban mbër mooy sa idole man man jaxas gi mooy sama idole jaxas waaw aw ma beneen idole mooy sa idole ci lamb aw ma beneen idole aw ma beneen idole non moom rek parce que moom moo ko fi wane barke Serigne Bamba yow ki booy bi li muy wax nii sax seex booy mbëri ñoo fi nekk di teggi rek maanaam lu ma takk sama sama ngemb ne damay bëre ba pare di taa di taamu ay mbër gi nga nit ki boo ko rawul ba ci kaw nekkoo roi des arènes ngeen tolloo même même catégorie ëppoo ko combat ëppoo ko victoire war nga mën a bëre ak moom mhm. ma da ngay taamu da ngay ñëw taxaw non non du ma bëre ki da gis koo xam ne sax moo la sut ëpp la fuuf di di wut di wut loo xamante ne moo gën laal mu dee la quoi njaxas gi mooy sa idole ah, mooy sama idole moo fi daax a ba moo fi dëkk ba mbër moo fi daa ko bëre. laajuma la laajuma la bàyyi bañ laaj la. ku daa ko bëre gi moo daa ko maa si topp. gi moo daa ko ci làmb maa si topp ñeneen ñoo am jàppale rek. feeñ kan moo fi daa ko bëre kan moo daa ko ci làmb njaxas gi. moo daa ko bëre ci làmb ji làmb ji wërngal këpp njaxas gi moo fi daa ko bëre. moo daa ko bëre ci làmb ji man maa si topp. question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi daa xeex. njaxas gi moo fi daa xeex. non non non jox ko kenn. moo fi xeex. moom laay jox lépp. lépp moom moom moom moom rek moo. déedéet da koy tasaare. kalaaxa gi dooru fi kenn mu daanu. dafa mën a bëre d'accord mais xeex wane ko ko fi da nga koy dóor mu fay. laaju ma de laaju ma la de nee naa la kaay toog nga bañ. yow invité naa la kaay toog nga bañ. waaw yow ñeme woo écran <laughs> kay waa noppil ko noppil kan moo dàq xeex ci làmb. déggoo ma ne la njaxas njaxas moo dàq xeex ci làmb ji. apaan njaxas gi man la. no yow bokkoo yow waaw ma non. ma amul keneen. yow yaa ngi loos amul keneen. xool beneen mbër seedeel ko. amul moom la moo dàkk ci làmb moom. jaxas waaw waaw léegi projet euh, question bi nag changé dégg nga jox keneen dégg nga làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a ñeme entraînement. jaxas moo gën a ñeme entraînement. Hmm. waaw. moo gën a ñeme entraînement. moo ko laaj mooy jaxas gi ah. ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a yembar. ban mbër moo fi gën a yembar non. mbër bu gën a mbër mbër gën a waaw dégg ma rek dégg ma wala mbër bu gën a waaw parce que gën a yambar mooy papa baari baari moo gën a yambar ci mbër yi ah xay sara topp si booy na booy na dama lay wax ñoom ñëpp ban mbër moo gën a yambar ci làmb ji papa baari baari moo gën a ban mbër ban mbër ban mbër gën a réew ci làmb ji mbër boo xam ne dafa réew ba xamul fu muy taxaw ban mbër moo ban mbër moo gën a réew ci làmb ji non làmb moom la la la làmb moom ñooy maanaam bu xasee ba dugg si biir làmb ji moom maanaam maanaam réew maanaam réewande mooy tegu bu xasee ba dugg si làmb dañuy teg réewande moom waaw. ban ban mbër moo gën a réew si làmb ji loolu dañ koy bàyyi dañ koy bàyyi ñeneen ñi mais ñun moom réewuñu maanaam mais ci biir làmb bu xasee ba dugg amadul jox cër. laaj naa la ñaari question nangu woo tontu njaxas gi su ma la laajee tontul keneen dégg nga làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a ñeme entraînement. njaxas gi moo gën a ñeme entraînement lu baax ñun tasaareel rek tasaareel. man mbër moo gën a ñeme entraînement ci làmb ji. waaw moom parce que moom laa gis gisuma lu ma gis du ma du ma wax lu ma gisul ko dinaa la fen loolu ban mbër moo dàq fecc ci làmb ji. moo dàq fecc ci làmb ji. yaa ci da ngay soob ñaata wóor na ya sa waay sa waay yow bëree ko arène ñu bëri arène la ñu wax. yi njaxas gi déggul galañ yàlla xam na ni mënul fecc. waaye laaj kuy kuy dàq fecc. billaahi wallaahi déggul galañ njaxas gi ileen waay waay waay sa waay maa ngi suivre nag njaxas gi première ko njaxas maa ngi ñëw njaxas gi ba muy tudd xale capable laa ko topp ba ba muy tudd njaxas gi mënul fecc déggul galañ ba mbala ku dàq fecc ku dàq ku dàq fecc ngay wax waaw ñun ñun làmb la ñuy def làmb àndul ak fecc njug la ànd ay njug la àndal ñu dañuy bàqu déedéet ñun dañuy baaxu baaxu la wax baaxu njuk mais fecc gaa yi fi dañuy tànn biir dañuy ñëw si làmb kan moo dàq fecc làmb ji waaye waaye fecckat ñu ngi noonu non bàyyi man fecc non fecckat yi nañ leen bàyyi si fecc yi rek waaw waaw waaw waaw waaw rakk ji waaw waaw booy wàññi leen wax ji yéen bari ngeen wax de booy wàññi seen wax ji eh, rakk ji ma ne làmb ji wërngal ko ban mbër moo fi gën a yaru laa wax yaru ku yaru ko xam ne dafa yaru dal teey moo fi gën a yaru moom moo gën a yaru moom moom maanaam gisagoo ko ba tey ñu sanctionné ko si làmb wala wala mu day ñëw bu bëre ba ñibbi sax doo gis ñu avertissement ko si ñàkk fayda wala ñu koy wax yaa def lii no kan ngay génnee keneen de man moom laa xam hmm. waaw yeneen mbër yi ma xam yëpp ba ba si ma dëkkal sax mooñ def kuñ demee làmb di gis ñu jël avertissement naan leen lii ak lii mais moom dina dem ba génn ci làmb ji doo doo doo gis ñu jox avertissement wala ñu koy wax moom moo jël lépp moo gën a yaru waaw moom la ba tey ci question réponse ma génn foofu euh, rak ji mën a bëre am fit ñeme entraînement am gàllaaj ban moo jëpp solo ci làmb waaw mais mais yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp am yëpp am solo si lamb solo moo tax ma ne la ban moo ci ëpp solo moo tax entraînement ah. moo si ëpp solo waaw moo jiitu waa mbër doole waaw mbër moom day entraîné boo gisee yow boo gisee mbër bu ñëmee entraînement da nga koy naw waa nice quoi parce que entraînement moom maanaam dalay moo lay permettre yow maanaam da ngay dem sax tey maara sax wax ne tey baaxul sax tey yow da nga koy andi ndax maanaam sax entraînement xam ne la ma entraîné kii du ma nga war a bëree ci sa jour combat woo la téléphone ne dafa am règlement bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi mooy dem làmb ja benn bi fi nga koy bàyyi wala doo bëri ñett yi ngay yóbbu làmb ja benn bi ngay bàyyi wala doo bëri ban ngay bàyyi. mooy bàyyi gàllaaj bi laay bàyyi fi. gàllaaj ngay moom laay bàyyi fi. nga yóbbu bëri bi fit bi entraînement bi. waaw parce que man parce que parce que man déjà man sama premier làmb noonu la demee man gars yi dañ ma man su ma entraîné man aw ma mbër bu ma dul taxawal waaw déglu ma expliqué rek sama combat noonu laa doon dund ak gars dañ may jox benn affaire sax ma tax ko mu déranger ma ma ko léegi nga boobu gàllaaj ngay bàyyi lan moo tax bàyyi woo bëri non parce que dañoo dem bëri ji boo demee bëri nooy bàyyi bëri waaw lu tax bàyyi woo entraînement bi non entraînement bi moo moo euh, moo lay moo mooy wane li nga mën entraînement mooy wane sa mën mooy wane sa mën lu tax bàyyi woo fit bi film mooy tax nga ñemee def li ngay def bu bëri ba tax na suñu bu galaaj ngay bàyyi waaw galaaj ngay bàyyi ban combat moo la gën a marqué ci lamb bi nga dalay seetaan lamb ba tey ban combat moo la ci gën a marqué ban combat moom gën a marqué comme comme nan comme combat boo xam ne da nga ko seetaan mu neex la wala combat boo xam ne da nga ko seetaan mu metti la mais boo xam ne dafa des sa xel mënoo koo fàtte boo xam ne da nga ko seetaan dama ko seetaan waaw man combat boobu man booy ñaa kii Balla Gaye booy ñaa Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye parce que man Balla tam dafa newoon sama mbër quoi waaw. waaw waaw moom bokk na ci li ma marqué ci lamb parce que. ban victoire moo la gën a neex sa carrière. victoire bu ma gën a neex. tournoi arène tout victoire bi la gën a neex. waaw bu ma bu ma gën a neex victoire kan comme kan. sa victoire yow. sa waaw man victoire yi ma am yëpp ma neex victoire du naqari. bu la gën a neex. bu ma gën a neex. waaw bii ma bii ma génn neex na ma. waaw waaw bii neex na ma. ban défaite moo la gën a métti sa carrière. défaite non amaguñ défaite. non maanaam tournoi genre yooyu. non tournoi sax amuñu tournoi sax tournoi sax amuñu défaite. tournage sax amuñu demee tournage non tournage sax tournage sax amuñu demee bi euh, benn bi dafa yàqu beneen bi tamit daa naroon yàqu ñu jox drapeau bi. noonu la fa demee ba tey ci question réponse ma génn ci làmb ji dugg sa vie privée da seetaan football. waaw dañuy seetaan football waaw. Hmm. ban club ngay si fii ay joueurs rek a fi ne. dañuy football dañuy fii waa NGB fii NGB lépp lañu mën dañuy. fi mënoo fay juddoo te doo mun xeex doo mun bëre doo mun fubal lépp la ñuy def chaque dimanche dañuy fubali bu buñ demee géej dañuy bëri ban club ngay supporté ban club man man kii kii laay kii Real Madrid Real da ngaa wextaan maison blanche Real mooy sama waaw léegi Real Madrid da nga may limal cinq joueurs yuy joué Real Madrid actuellement actuellement waaw ah kii nu mu tëddee Vinicius ne nu mu tëddee waaye booy milieu terrain bi. gaay gaay ay ay ay noppi leen ma tànk booy booy milieu terrain bi bi waaw te mën football rek waaw bokkatul billaahi bokkatul bokkatul Touré yàlla xam ne da ngay jënd néeg bi da ngay jënd néeg bi de yàlla da ngay jënd néeg bi bokk non non non non waaw bokkatul bokkatul sa moo la ko jox Vinicius nga fi joxe sa yàqal na la benn ñëwal ah ah ah ay ah, Toni waaw. Toni Kroos fa la ah, waaw saa saa yaa dama ne cinq joueurs Real Madrid jox nga ma Vinicius Junior ak kan Toni Kroos. ak waaw Toni Kroos ak ak waaw ak ak Sadio Mané fa la Sadio Mané mi ngi Real instant yii Sadio Mané mi ngi Real ak ah, non mi ngi Real instant yii saa ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne dañuy topp dañuy topp football dañuy topp laam. waaw kontel rek ma jàll wala. waaw Sadio Mané ci la bokk. waaw nag moom ma limal la baa ma limal rek baa ma limal rek. zo zo zo zoru kan. Ibrahima Vissi la tudd Ibrahima Vissi. Ibrahima Vissi la. Ibrahima Bissi waaw ah, Ibrahima la waaw ak ak waaw kii kii fa la nekk nu mu tëddi Neymar Neymar foofu la nekk Neymar mi ngi Real ñu fa siyoon ñu fa siyoon ba jàll waaw ah, ay ñoom Chris yooyu noonu ay ñoom Karim Benzema waaw ñooñu fa lañ nekk billaay su ma ko bàyyi woon man moom rek tey fii ba suba du génne cinq joueurs Real Madrid waaw waaw waaw coow kan mooy sa joueur man sama joueur non Sadio Mané sama hmm. joueur. Sadio Mané mooy sa joueur mooy sa joueur. kan mooy sa waykat. sama waykat. ah Ballago Seck. <laughs> kooku mun a way non kooku dafa ci jamono ji ko moom laay déglu quoi jamono ji. waaw damay déglu ay retour lu bari sax mais moom maanaam moo yor dañ ko bàyyi ambiance ah. waaw non cont ah, bu retour yi moom Ndiaga Mbaye Ndiaga Mbaye laa faral Ndiaga Mbaye Ndiaga Mbaye sama woykat la mais Wally Seck jamono ji comme boog ah, waaw si nii moom ah, moom laa dégg waaw gone waaw moom du moom kese way ñu kontaan mais dañ koy déglu bari waa Pape Diouf ba tey ci question réponse rakk ji kan ngay seetaan reetaan ba fàtte sa journée ñaanku ñaanku faramaare waaw ne naa ko may cent francs ñànku naa la jox cent franc waaw yor naa yor yu bari cent yu bëri kay yow xam ne ñànku la ñànku danaan cent franc cent franc mooy xaalis mais ba mu organiser grand théâtre entrée bi cinq mille cent franc la ko cent waaw mais mais xam nga rek cinq mille cent franc noonu la parce que cent franc comme cent franc yaa ngi si rek moom hmm. la waaw ndax moom bu mu nee di jaar chaque jour NGB ma koy jox ond am na fi ond de na koy jësi cent franc waaw cent franc yaa ngi fi demeewul nii quoi waaw ñankoo ngi dóor ñankoo ngi saaga waaw boo lañ ko dalee topp dañuy doon toog bàyyi faj bàyyi guddi ba fajar di ko seetaan <laughs> da ngay jëjeeg nit ñi dégg la ngay reetaan ñu ñëw yéenu sa néeg lan moo tax ngay reetaan lan moo xew waaw fekk moom lañ doon seetaan waaw de coob lan mooy sa plat préféré coob man bañu ma dara ma ma non man ne tey bu ko bu ko xoolal waaw waaw yoolal sa bopp rek loo xam ne tey boo demoon entraînement dugg ci gàlle bi xoolal ne bi xëy maxal bu tooy. maxal ah, jën bu tooy. waaw maxal bu tooy. lan mooy sa plat préféré la. ay doon nii gisoo xamuma eh, loxo eh, bu tooy gisoo. maxal bu tooy la. waaw tooy xepp moom la ñuy jël ne pour sax la ko gars yi tuddee eh, mbaxal bu tooy mooy sa plat préféré. tooy xepp sax bàyyi. fan bu tooy ba ba mel ni la gën a neex ci Sénégal. fan moom gën a neex ci Sénégal. non man instant eh, fi mu fi mu fi mu moom gën a neex. waaw NGB waaw. a waaw. tey ci question réponse boo doon tukki ban réew ngay dem. ban réew instant bii nii moo doon génn moom mun naa dem ay Canada ak yooyu noonu. waaw Canada may wax ak yow question réponse instant may wax ak yow nga liggéey tekki am xaalis bu bari loo ci njëkk a def. li ma ci njëkk a def waaw mais eh, bu ma liggéey am xaalis maanaam dama dama ci tabax kër. sama kër dugal samay samay waajur waaw ak encadré sama sama sama sama njaboot waaw ak samay samay frère ak ñi nga xamante ne ñooñu man ak ñoom ñoo yàgg nekk waaw ñooñu ñooñu moom maanaam ñoom ñëpp kay jaru sax may lim ndax gars xam nañ seen bopp waaw ñoom parce que ñoom maanaam man ak ñoom ñoo bokk lii rek moo ñu séparé mooy que mooy que ni euh, ku si nekk kër gi nga nekk instant da nga ko moomut mais bu fekkoon maa moom sama kër wala moom moom këram maanaam peut ñooy bokk fanaan ñun ñëpp waaw euh, question suivante bi ni ni may wax ak yow ni nga xey un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jële ko fi benn baat boo ne lii jële leen ko fi jële ko fi loo fi jële lu ma fiy jële non fi fii moom ma maanaam bu ñu waxoon benn baat moom moom laa war a moom la fi war a jële mooy injustice rek injustice nga fi jële benn baat da nga naan jële leen fi injustice waaw ba tey ci question réponse euh, ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak jour boobu lan nga dund ban jour moom gën a neex ci àdduna lan nga dund jour boobu non non boo boo ba ba. ñëwal rek ñëwal rek non lebaluma la ko lebaluma ko. non dama dama dama nekk ci làmb moo tax. ban jour la nekkoo ci làmb yow mën nga xool fële. baa ma leb ko xoolal fee ban jour moo a baa ma leb ko rek. jour nga takkee jabar wala jour bi nga amee doom wala jour bi ñu la tuddee doom wala jour bi ñu la defalee teraanga wala jour euh, bi nga bégalee sa waajur ban jour moo la a neex. ma ma baa ma leb ko rek. Hmm. baa ma leb ko jour bi nga gisee sa sa taaw. baa ma leb ko. Hmm, ma baaxul ak ko rek aw ma. bu lebal naa la mais ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak jour boobu lan nga dund jour boo xam ne danga nga yëg naqar ak tiis ba nga xam ne am nga la métti. non jour waaw am naa lu ma métti kay sama àdduna moom mooy jour bi nga xamante ne sama sama mag ci la génn àdduna sama mag waaw. sama mag waaw bu góor waaw boo xam ne maa topp si moom. waaw waaw waaw doon nañ lu doon nañ lu yaatu sax waaw. loolu ban année la. Ah, waaw moom 2021. 2021 2021 la génn waaw. waaw le 7 le 7 7 euh, novembre. waaw waaw moo génn àdduna. waaw moo waaw. boobu doo ko fàtte. loolu ma ko fàtte sax parce moom dafa jege woon si man trop. Hmm. waaw jege woon na ci man trop waaw. di ko ñaanal rek fa mu nekk gënal ko fii waaw moom moom daanaka moom foofu xam naa ne ay xéwal la fa am nag duñ ko duñ ko mës a fàtte si dara waaw dañ koy nemmee ko sa euh, chaque jour duñ ko fàtte si dara kooku jàmbaar woon non jotul woon am njaboot waaw ñun dañoo nekkoon ay njabootam moom parce que ñun moom daanaka daf ñu daan sàmm si lu bari waaw daan dimbali si lu bari daan nañ yëkkati alalam di ko def si ñun waaw moom talu woon dara si boppam lu mu am suñu loxo lan def yàlla ñu yàlla suturaal fi mu jëm yàlla ko gënal fi mu jógee dernière question soo nekkul woon mbër lan ngay nekk soo nekkul woon mbër joueur football ngay nekk boxeur ngay nekk basketteur ngay nekk rappeur ngay nekk waykat ngay nekk wala euh, soo nekkul woon mbër lan su ma nekk woon mbër si wàllum sport wala ci lépp lan ngay nekk ma nekk woon mbër nekk rek job liggéey rek waaw dóorkatu waar comme comme li may def nii rek da maanaam comme si li ma nekkoon rek maanaam maa ngi doon def sérigraphie maa ngi doon def aluminium aluminium moom sama métier la tamit. waaw uh-huh. ay damay dagg aluminium damay damay verre nu mu toll dama koy dagg feuille nu mu toll uh-huh. dama koy dagg uh-huh. waaw si métier boobu laay nekk boole ko commerce parce que tam maa ngi woon si commerce man baa ma woon dara mais amoon naa ay métier qualifié quoi mm-hmm. waaw. jaamsi xaaral ma ñëw nga tàggatoo Touré Touré yow lan ngay tëjee. waaw di santaat ñëpp rek ak Serigne Bamba di santaat ñëpp di leen wax Sénégal waaw ñu si sant ñëpp nag di ñaanal ñëpp. li sniper Dame de station maanaam sniper il est là. l'hymne national. waaw hymne national sniper. waaw. sniper il est l'enfant du devoir les quatre interceptions et les deux ronds-points l'autre rond-point s'appelle rond-point Zedo à côté de stade Demba l'autre rond-point s'appelle rond-point Cheikh Aïdara xayma bi en face Massalikoul Jinaan waaw bak une Bamba ki fi la foowee fi la judo, fi la yoroo waaw ñaari tal lu muy yaatu de quatre quatre interceptions là. am billaay wallaay maa toog ba guddi mu ñëw sama xel ma bind ko billaay walaay quatre interception la am interception bi nekk SDE bi. waaw bi nekk SDE bi. boo avancé ak bi nekk diggante koñu jumaaja fi ñu jaayee pon boo avancé koñu fuur ba ak koñu jumaaji yooyu fi am ñaari rond fi am Zedo ak xayma bi barke Serigne Bamba waaw na waaw sañ tabañ na ngeen ndeyam ku sa bàyyam piscine doo fay. billaay walaay barke Serigne Bamba. le sniper. le sniper c' est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la mais xam naa ne du mujj tey ah tey nag tey tey xam naa ni am na lu ñu jot a évacuer mais dañuy waajalaat leneen lan ngay tàggatoo ñu tëj waajalaat leneen. waaw di di di delloo siyaaraat ñëpp nag di siyaaraat ñëpp di màggal ñëpp waaw di wax gaa yi sama gars yëpp masa coono waaw ndax man maa ngi teg coono bi yëpp waaw ndax boobu ba léegi gars yi ba léegi yaa fi nga leen fekk waaw ba léegi bàyyi bàyyi guñu waaw maa ngi leen maa ngi leen masaw waaw di wax ne nag na seen xel dal maa ngi si entraînement yi lépp lu waaye gis nag loolu naqari si man waaw ubbi naa bunt yi na nga ñëw wax moo te bañ nag di ko waxtaane si mbedd ndax ñun ànd bu seer seer laa bëgg ñu ànd boobu ëllëgee bu alal duggee wala dara lu mënta dugg di nga mën a am fullay ñëw taxawaat sama kanam wax ma dëgg parce que ànd moom foog foog dëgg di nekk si rek ku ma mënul wax dëgg si ba ma yorulee bés bu ma demee ba yor doo mën a wax dëgg waaw kon nag dañuy waxante dëgg lu ñu gis leen naqar si man dañ ma woo wax ma ko ndax nit matul waaw nit matul di jégaluwaat ñëpp waaw waaw di sant di sant ñi ma ñi ma jàppale woon ci combat bi ma leen santaat waaw waaw dina wax maa ngi yoon bu baax a baax a baax instant yi nag man ñi si kanam laay xool ñi si kanam te damay dem incha allah na ñaan yëpp gën a ñëw waaw may sant may may sant may sant bu baax ñi nga xam ne ñoo ma jàppale ñi la jàppale ci combat bi. waaw moom laay sant ñëpp bul bàyyi kenn. bu ma bàyyi kenn incha allah. am ñu si jàpp. waaw combat bi am nañu si jàpp ñu bari sax. waaw maa maa maa ngi sant ku si mel ni euh, sama coach Pek. maa ngi koy sant bu baax a baax dama ko fàtte moom maa ngi koy sant. Mm-hmm. sonn na si combat bi coach Mbaye Faye. sonn nañ si combat bi bu baax maa leen sant. bu baax a baax di sant Ablaye Ablaye Ba sama mag la kooku maa kay koy sant bu baax waaw sonn na si combat bi gis nañ sax jamono nu mu demee te teewul bàyyiwul yëkkati na lu mu am jox ñu waaw lu bari la yëkkati jox ñu waaw ba ñu joxee nag ñëwaat taal mbutoom tëj place am ñëw joxaat joxaat joxewaat ci kër gi jëndaat ay billet mayewaat waaw kooku ñu fayam ànd ak ñun sat ñu soutenir kooku du mënuñu ko fàtte ndax moo ñu yar sax maanaam dafa bokk si ñun waaw di sant Babacar dibiteri ba waaw Babacar bi dibiteri Baye Mbaare ñu ngi koy sant moom it jàpp na si combat bi waaw nañu xaalis bu bëri waaw Babacar jàpp na si waaw di sant waa famille ci benn waa famille ci benn tamit ñu ngi leen sant bu baax a baax baax ci bu bi waaw ñu ngi leen sant bu baax di jël sant bi di koy teg si loxo sëñ Mbaye pour chaque jour mu jàllale ko si waa yëpp waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax baax ku ci mel ni sëñ Mbaye na si combat moom dafa yëkkati teg si tam toog di ñu ñaanal waaw ndax moom ñaankat la toog na ñaanal ñu bu baax a baax moom bokk na suñuy tarbiyu si alxuraan ak xasida waaw moom sëñ Baye ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax Fallou Fallou bu ko ñu lagrose bu ko ñu lagrose ñu ngi koy sant Fallou waaw Fallou bu Suplaza ñu ngi lay sant bu baax a baax combat bi jàpp nga si bu baax waaw moom mooy Fallou koo xamul rek xanaa di di nga gis ay vidéo am si TikTok bi mooy mooy faral di dugal ay ay jaan ay ay jinax yooyu yooy ay animaux daal lay faral di yor waaw Fall boobu ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax Fall ñu ngi koy sant waaw di leen wax ne Fall samedi incha allah day day day jël soxna waaw na ko ñëpp teewee incha allah Fall ñu ngi koy sant bu baax a baax baax waaw di di di sant waaw ñu ngi sant ku si mel ni Bas Bas bu ko ñu bootoo Bas waaw sama milieu terrain bi waaw daa moo daa bëggatul football rek mais saa yi buggee football day bokk moom waaw ba léegi bu duggee si terrain moomul gars yi waaw moom jàpp na ci combat bi seetaanuñu na si bu baax a baax a baax yëkkati na lu mu am jox ñu waaw di sant ku ci mel ni tonton seex tonton Cheikh Gueye waaw di papa si Papi njaay ak Zal ak Mati Ndiaye waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw moom jàpp na si combat bu baax ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal jàmm ñaanal ko gudd fan ak wér-gu-yaram waaw yàlla bàyyi ko fi waaw ñu di sant ku si mel ni Tacama ñu ngi koy sant bu baax di sant euh, Begaay ñëpp jàpp nañ ci combat bi nag combat ñoom ñoo ñoom ñëpp a si soutenir woon waaw bii nag maa leen sonal woon ñëpp jàpp nañ si ñu ci sant ku si mel tapire ngi koy sant combat bee paas si jàpp waaw comme li ma leen wax rek bii maa leen sonal dafa ñoom samay yaay ay ta marika ñoom ñëpp dañoo jàppoon si combat passé ak ñoom tondoo gile tondoo gile ñu moom jàpp na si combat bi même bii yëpp sax jàpp nañ si parce que bii ñu ngi toog doon ma ñaanal ndax fu waay toll rek naan Sniper Ndiaye yàlla na ko yàlla mbéy na rek yaa ngi may ñaan ndax ñaan dañ gën a yittewoo sax di sant ku si mel ni Diarra Ndiaye waaw di yaay di yaay si Ibra waaw ñoo ngi koy sant bu baax a baax waaw jàpp na si combat yi combat moo moo jàpp si añee yëpp waaw bii mag ñoo ko sonal waaw day prochain ñoom ñëpp dinañ ñëwaat si ñoom parce que ni réew demee woon rek si élection dugg si koor ah après côté yooyu noonu moo taxoon nag sonalul leen loolu la sant ko si mel ni yaay yaay yaay taasatu ñoo ngi koy sant ñoom ñëpp ñu ngi doon ñaanal taa nday ba taa nday ba waaw yaay nday sali waaw yaayu Mama Coro ñoo ngi koy sant bu baax moom jàpp na si combat bi di sant euh, nu mu tuddati ba waaw bu yaay Babacar Diagne waaw ñoom ñu ngi koy sant waaw di sant ñoom kati ñoom jokin kër njaago yi ñoo ngi leen sant bu baax di sant euh, nu mu tuddati taaroo koy saw moom it na euh, jàpp na si ñaani waaw moom dem naa bëre ba ñëw fekk ko mu yor kurus bi di ñaan rek ma ne ko ma ne ko nañ bàyyi ba beneen combat mu ne noo day kon ne ñaan yi waaw di sant ñoom tonton Ndiouga waaw ñoom ñoom ñoom ñoom Pape Dourou ñu sant bu baax ak ñoom tonton ay Bas Bas ñu ngi koy sant sëb sëb sëb ñu ngi lay sant bu baax a baax sëb yow moom duñu la fàtte chaque jour moom yaa yaa ngi sonn ay ala waaw ala ala rawan borom borom eh, bi waaw ñoo ma roofale fii ba mu roofale waaw jàpp nga ci ay ñoom maam Dóor ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat waaw maam Dóor borom Dóoru yi ah, ay ñoom julo waaw Ousmane Ousmane Ousmane Moto ñu ngi leen sant bu baax gis nañ seen taxawaay ay ñoom Cama ñoom ñëpp gis nañ seen taxawaay waaw ñoom Père Silaay ñoom Père Silaay ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax waaw di sant ko si mel ni Ismaïla Ismaïla Moto Ismaïla patron Piccu ñu ngi koy sant jàpp na ci combat bi Maxson sama copain jàpp na ci combat bi ak Ibou Ibou Mara jantal Mara waaye moom jàpp na si combat bi tam bu baax a baax ah, di wax góor Gora Thiam moom kenn du ko fàtte si si la bokk moom Thiam Gora Thiam Maysa Gora Saliou yow moom sunu waay duñ la fàtte si dara waaw yow maanaam dangaa jël bis bi def ko sa bis waaw pour jagal ko ba mu jag yëpp ñaanal ñu génne sarax yeeg yëpp yaa yaa yaa si dox yow kenn du la fàtte si dara pël Maamadu borom ay fan yi waaw borom ay fan yi yow moom kenn du la fàtte chaque jour da nga ñëw chaque jour da nga ñëw toog di ñu soutenir di waxtaan ak ñu si combat bi nu mu war demee waaw di dalal suñu xel combat bi ñu nga jox nga jàppale ñu jox ñu xaalis nañu jàppale naa si lii waaw duñ la fàtte yow ci ci ci ci ñaan ñu lay ñaanal bu baax ñu lay ñaanal bu baax di la wax ni yàlla na liggéey bi barke waaw pël pël duñ ko fàttewu di sant ki si mel ne Ahmadou Ahmadou gars yi gën ko xam si Menga borom borom essence eh, bi waaw borom lesgo bi duñ la fàtte yow yow moom jàmbaar nga si kaw jàmbaar yi yow bu ñu ba mel ni yaa tax waaw yow duñ la fàtte si dara bis bi tam ñëw jël ko def ko sa bisu bopp waaw ñu ngi lay ñaanal jàmm bu bari di ñaanal wér waaw ñaanal ñëpp yàlla nañu am jàmm waaw yow moom duñ la fàtte si dara waa Gaston production waaw eh, Ahmadou waaw ñu ngi lay ñaanal baax a baax baax waaw di ñaanal Mohamed sama copain euh, moom moom doon yóbbu saal moom dafa ma jël na ma kañ leen saal maay fay di ànd ak ñu ngi koy sant bu baax a baax baax duñ la fàtte di la wax nga nuyu dëkk bu baax nga xam naa dangaa julli ji waa ji waa kàkku ji ñu ngi leen sant bu baax duñ leen fàtte di teg seen sant si si euh, Alioune Badara loxo Alioune waaw kaako ji ñëpp gis nañ seen taxawaay jug ngeen wane ngeen wane ngeen euh, wane ngeen ni seen frère la ñoo bokk li luñ bëgg waa kaako ji waa racine waa racine ñu ngeen sant bu baax waa wa racine mom sen sen nuyo ak sen lepp ma ngi tek ci loxo fara ak Cheikh Baara waaw euh, njaa njaa njaago bu sniper waaw njaago bu sniper ko mom aw ma fay manam mak mom ben lañ ko wa ñu ngi sant ñu ngi sant bu baax di sant wa sans loi wa sans loi duñ ko duñ leen fàtte Demba ci ko <laughs> ko yow duñ la fàtte yak Matar Matar Matar sama talibé bi waaw ko duñ kooku duñ talibé ba tey mo ne si moom billaay jàmbaar la waa waaw wa ñu ngi leen sant bu baax mom la fanaan fanaanal wa di sant euh wa xambe xambe ñu ngi leen sant di tek loxo euh, neew bi su loxo taala ak Aliou Aliou medd bi sax bu ban bi <laughs> sala ko ko sala ma ma kay tek su loxom ak ak taala taala waaw maa maa ngi teg waa xambe si ñoom waaw di sant ñëpp waaw bàyyiwuñu kenn di sant di sant di sant suñu soxna yi jabar yi waaw ñoom dañ sonn nañ ci kii bi ku si mel ni soxna Béti ak ak ak Maada waaw ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ñoom sonn nañ di sant ki mooy Adama waaw moom féetuñu féetuñu place yaay koy sant bu moom sonn na si di sant suñu rakk si man waaw waaw moom moom du du du du leen du leen fàtte di sant Ndeye Fatou borom <laughs> si na beeg waaw ñebe yeeg yooyu noonu da ngay jóge entraînement ñëw mu defal la mu roog ñebe da si nen baxal na la asi dóoral waaw di ko sant bu baax a baax a baax waaw di sant Ibou di sant sëriñ Serigne sama rak waaw Pape moom du ma ko sant Pape Messi <laughs> na day teel da ba ba mbaa nga liggéey bu baax Pape Messi waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal yàlla ñëpp am jàmm waaw waaw di di sant di sant di sant nag waa Malika waa Malika moom du ma leen fàtte foofu sama kër la ma leen fàtte mukk waaw waaw Malika foofu ngay ñibbi waaw ñun ñoo ñoo ngi dëkkee montagne robinet robinet ko Kara doole ko ñu waaw ko ñu Kara ñu ngi koy nuyu bu baax ko ñoom lañ dëkk Père Dame Ndiaye këram war nga xam waaw ñun foofu lañ dëkkee Imam Ndiaye war nga xam waaw waaw ñu ngi ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm parole de sniper samagaï. L'émission tire à sa fin tey ñoo ngi woon fii ci Grand Dakar NGB une émission victoire après combat ñëwoon seet qui kii di sniper le sniper de NGB mi ngi pensionnaire de l'École de Boy Bambara moom lañ ñëwoon euh, seet si tey séq ak moom waxtaan ma leen di joxaat ba beneen yoon ziar ziarat jaa sama gars